waaw sama gars waaw waaw waaw waaw voilà sànq maa ngi leen wax dama am ay surprise pour yéen dama am ay son yoo xam ne sama gars yi ma jege sax dégloo wuñ ko te dama leen koy tegal yéen fii nii tey sëñ am da ngeen ko namm kay. yow naa leen maa leen raw. mais dafa am benn benn maman buy laajte doomam Asmalik Asmalik bu fekkee yaa ngi may dégg sa yaay bu ngi lay xaar fii si ginnaaw.